la woon fa penku la yàlla wëlbati indi ko ci saw man maay benn maay démb moom ma du la bi yoon maa diw la tudde si nit ñu ñuul ñi la woon fa penku la yàlla wëlbati indi ko ci saw damay gan bu noo doon xoole wàlliyu ma ñëw dib yonent di xayru xalqillah nun bàyyi lay lu nu gis de sëy naa li moom alei salatu salaam lu nu gis de ayaam daral insi wal jinni